bismillahi rahmaani rahim noo ngi fas yéene tàmbali bandum ñetteel bi ci xatum ñeent fukk ak benn boo tàbbee ca jumaa ja te yilimaan génnegul na nga julli ñaari rakkaa nuyoo ko jumaa ja bu yilimaan génnee nag dootoo julli lu dul farata ja bu yilimaan dee génn te fekk la ci biiru julli nag doo ko dog na nga ko àggale bu la nodd ga jëkk bu la nodd gu jëkk ga fekkee ca biir jumaa ja nag sib nañu ngay naafila bu la ca fekkul nag wala nga ëtt ca biir nodd ga kon da nga sañ a naafila lu la neex li fekk yilimaan génnul bu yilimaan génnee nag kenn dootul wax ku ne da koy xool di déglu la muy wax bu ko déggul it mu ne cell te di ko xool boo tislee sañ ngaa wax alhamdulillahi rabbil aalamiina te yalu ko kenn bañ koo dégg ku tisli nag yow bu ko wax dara bu yilimaan di xutba ku fa wax ak julleem du baax ku jullee fu dul ca biir jumaa ja itam ak julleem baaxul ndare du jumaa ja dafa fees kon dees na sañ a jokk ca sàppe ya dees na sañ a jullee itam ca ëttub jumaa ja ak ca yoon ya ku man di jullee ca sàppe si jëkk sa nag moo gën ku ko mënul fa ca tege ba ba sàppe yay jeex julleeg àjjuma nag ku nekk fu jumaa am te mu war ko du sañ a tukki ci bésub àjjuma ba lu dul njëkk fajar waaye bu fajar xësee jot nag dootul sañ a génn dëkk ba te julliwuñu jumaa ba noppi ndare nag nga xam ne jumaa am na fa mu jëm wala ci yoon wa nga xam ne dana ko fa mën a julli ku amee ngant lu ko tee mën a julli ji sopp nañu balaa julli tisbaar mu nekk ba waa jumaa ja julli ba noppi mu door a julli fa mu nekk gone nag bu laabee te du fo sopp nañu mu julli ji jumaa ab jaam bu ko ab sangam liggéeyloowul lu ko tee mën a julli ji sopp nañu mu julli ji jigéen ju màggat te ñaaw te xobodo te sol sëri yu ñaaw te sol sëri yu ñaaw sopp nañu mu julli ji sañ na itam ànd ci julleeku faatu wala mu dem ci julli it waaye yooyu yëpp ci sartu mu màggat ba ñaaw lool ba góor gu ko gis du ko faale te mu bañ a laal la koleñ te fiiti ca gannaaw góor ña te muur lu dul ab xar kanamam ak i ténqam lu ko moy nag ak génnam jëm ci jumaa wala armeel wala mépp mbooloo mu góor lu xaraam la jigéen ju ko def fu mu génne néegam ba ba muy dellu si malaaka mi bind ay bàkkaaram du nappalu te malaaka mu mu romb ak suuf si muy dox ak asamaan si ko tiim ak biddiw yi ak lépp lu mu romb mi ngi koy rëbb te di ko móolu naa ko yal na la yàlla sori yërmandeem maara dey taali ku wax gannaaw julli ajjuma ba mu daataa jóge fa mu doon jullee subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alxasimi astaghfirullah alxasima allazi laa ilaha illa huwa alxayyal qayyuuma wa atubu ilayhi téeméeri yoon dees na ko jéggal téeméeri junni bàkkaar jéggal ay waa juróom ñaar fukki ak ñeent junni bàkkaar naka noonu ku jàng gannaaw jullit ajjuma bala moo dinkar ñi ay tànkam faatiya aqul huwa allaahu aqul ahuusu bi rabbil falaxi aqul ahuusu bi rabbin naasi lu ci ne juróom ñaari yoon moom it dees na ko fegal jépp lor ba ba ajjuma ja di dellu si naka noonu ku saxal ñaan gii gannaaw jullit ajjuma gune wala gannaaw jullit suba gune yàlla dana fay ay borom dana ko musal ci ak ñàkk mi ngi nii allahumma yaa xaniyu yaa xamidu yaa mubdi'u yaa mu'idu yaa rahimu yaa waduudu ikfini bi xalaalika xan xaraamika wa bi taaxatika xam maxsiyatika wa axnani bi fadlika xaman siwaaka juróom-ñaar fukki yoon naka noonu ku jàng sóoratul kahfi bésub ajjuma dana leeral digganteem ak kaaba ga dana leeral xolam yëg ba ba ajjuma di dellu si naka noonu ku wax astaxfirullah allazi laa ilaha illa huwa alxayyal qayyuuma wa atubu ilayhi ñetti yoon bala moo julli suba ajjuma dees na ko jéggal bàkkaaram yépp boo dabee yilimaan ba mu daataa siggi ca rukkoo ba kon booba rakkaa jot nga ko boo ko fekkee siggi nag booba rakkaa raw na la bu la yilimaan rawee booy fay te fekk am nga ci julli ga ñaari rakka kon boo jógee da nga wax allahu akbar boo ca amee benn wala ñett nag doo wax allahu akbar boo ca amul lu matub rakka itam da nga wax allahu akbar koo xam ne dafa fekk yilimaan ci rakka te mu xam ne bu doxee ba àgg ca sàppe sa dana fekk mu siggi kon su booba rakka doonee bu mu juba day armal fa mu toll tey dox bu yilimaan rukkoo mu rukkoo tey dukkat ba àgg ca sàppe sa ànd ak moom bu sëlmalee mu fay la ko rawoon bu rakka ba mu ko fekk dul bu mu juba nag kon na dox rek ba àgg ca sàppe sa fu mu ko fekk mu xarmal te ànd ak moom ba mu jeex mu fay ndegam raw na ko rakka bu mu àndul ak moom ci rukkoo ba nag booba rakka raw na ko loolu moo tax rakka ba mu ko fekk bu dee bu mujj ba bu ragalee mu rukkoo balaa agsi ci sàppe sa kon fa mu ko fekk mu daldi armal te wuti sàppe sa bu ko fekkee mu rukkoo mu armal te rukkoo te dukkat wuti sàppe sa ni ma la ko waxe woon bu yilimaan siggee ci rukkoo ba te àggul ca sàppe sa nag kon na taxaw fa yilimaan siggee te ànd ak moom bu ko defee su fekkee rakka booba du bu mujj ba kon bu yilimaan taxawaatee ci beneen rakka dana sañ a dox ba àgg sa sàppe sa àggaleeg julleem waaye siggee ci ab rukkoo ba noppi di doxaat daal moom lañu nanguwul la la raw ci yilimaan nag boo ko dee fey bu dee jullit biral nga biral ko bu dee jullit yelu nga yelu ko na ko yilimaan defe woon rek nga koy defee boo fekkee yilimaan siggi ci rukkoob rakkaam bu mujj nag googa julli bokkoo ca waaye du tee da ngay ànd ak moom la ca des ba mu sëlmal nga jóg kàbbar julli julli ga na nga ko war a jullee te bu yilimaan di sujjóot xabla wala baxda te àndu leen lu matub rakkaa kon yow bul sujjóot bu ngeen àndee lu matub rakkaa nag buy sujjóot xabla àndal ak moom bu dee baxda nag da ngay tey ba sëlmal door koo sujjóot ku amee bari julli nag war na ko fay na mu ko faate woon bu dee julli dox mu faye ko julli kuy dox bu dee julli teew mu faye ko julli ku teew ba waxtu wut ba waxtu teewee te say bor ëppul ñeenti julli kon da ngay fay bor ya door a julli waxtu wu teew wa bu ko ëppee nag kon da ngay jiital waxtu wu teew wa door a fay bor ya ku fàtte lim bi mu amee ci bari julli day fay lim bu ko wóor ne mate na ay borom bu matee ay at ba neexatula fay ci senn saa neexatula xamit nu mu toll kon day saxal bés bu ne mu fay julli juróomi bés at mu dee di juróomi at ba ba mu koy wóor ne at ya mu julli mat na ya ko faatoon sëkk wala mu ëpp ko ku amee baru julli du sañ a naafila lu dul safaak wetar ak kori ak tabaski ak mbaaw ak muuru jant wala weer waaye doya dal bari julli sax daganul ci mu kàllaf ku amee ngant lu ko tee mën a julli nag saa su ngant la dañee war na mu daldi koy fay ci waxtu wa mu doon waaye naafila nag terees na ko gannaaw tàkkusaan ba jant so ak gannaaw julli suba ba ba jant bi di yëkkati ku lu toll ni ab gopp ku juum ci julli bu fekkee dafa wàññi kon bu taayaa bay bëgg a sëlmal day defaat ñaari sujjóot taayawaat door a sëlmal loolu moo di sujjóotub xabla bu fekkee dafa dolli nag kon bu sëlmalee ba noppi day sujjóot ñaari sujjóot taayawaat sëlmalati loolu moo di sujjóotub baxda ku boole dolli ak wàññi day sujjóot xabla ku jóg ci ñaari rakkaa jëkk taaya bu ko fàttalikoo ba mu daataa yëkkati ay loxoom ak i wóomam ci suuf day dellu jekki taaya àggaleeg julleem te du sujjóot bu yëkkatee ay loxoom ak i wóomam nag kon na wéy te sujjóot xabla bu temmoo ba noppi dëjuwaat kon na sujjóot baxda bu temmuwul te dëjuwaat nag kon sujjóot waru ko ku sëlmal ci ñaari rakkaa bu fàttalikoo wala ñu sàbbaa ko kon na daldi jóg àggaleeg julli ga te sujjóot baxda koo xam ne sikk da koy faral ak gaar ci julli nga xam ne ñaare julli gu mu julli rek sikk ca dara kon day jëlee la sikk sa tey sujjóot baax da moo xam dolli la sikk wala wàññi te bañ a def la mu sikk ku nekk ci dox bu dagan te mat juróom-ñaar fukki kilomètre ak benn sunna la ci moom mu wàññi tisbaar ak takkusaan ak gee lu ci ne mu def ko ñaari rakka moo xam nag da koo doxe benn wala da koo doggamtal waaye dogu na ci balaa dëpp mu mat kilomètres yi ñu wax moo xam da koo dox ak tànkam wala mu waru fas wala wata wala luy naaw waaye kuy seet lu réer nga xam ne bu ko gisee dëpp du wàññi naka noonu kuy wëndeelu rek mel ni kuy seeti mbokkam moom it du wàññi waaye ku xam ne fa mu jëm mat na limu kilomètres yi ñu wax lu yoon wa dëng-dëng ak lu mu yeex-yeex ak lu mu gaaw-gaaw dana wàññi waaye fu mu wàcc te fas faa am lu mat ñeenti fan nag war na fay matal ba ba mu fay jóge fa soxnaam nekk itam du fa sañ a wàññi waaye lu mu yàgg-yàgg fi barab te xam ne ay soxla rekk ko fa bàyyi waaye doguwul ci xolam sax fa lu mat ñeenti fan kon it dana wàññi ku tukkiwul nag sañ naa roy ci kuy tukki waaye kon it bu sëlmalee moom na jóg mottali waaye nag sib nañu lool kuy tukki di roy ci ku tukkiwul ngir kon du sañ a wàññi te wàññi mooy sunaam guddaay bi ñu wax nag tàllalub dem bi rek lañu ci jublu waaye waxuñu dem ak dikk mu door a mat lim bi ñu wax fa muy tàmbalee wàññi nag moo di bu weesoo këram lu mat ñeenti kilomètre ak genn wàll bu dëppee ak ak bu dëppee ba ëgsi foofa tàmbaliwaata matal jàkka nag ku amul ngant lu ko ca tee mën a dem kon dem nga day war ku ca mënula dem nag sañ naa jullee ci bépp barab bu laab waaye sib nañu jullee ci ab sën akub busari ak ci kaw yoon akub urmbal ak goorukaayu gëléem ak ci kaw kaaba ga biir kaaba ga itam terees na ca farata waaye terees ci ca naafila bëgguñu nag kuy julli soxlaa doxi aajo wala gaanuwaay di bësanteeg moom dañuy bëgg mu doxi ko ba féex bëgguñu itam ku yilimaan raw ngay fay di ko royaat ci keneen bëgguñu itam kuy fay tisbaar di roy ci kuy julli tàkkusaan waaye ñu bokk lu ñuy fay nag mën nañoo jiitante bu aw ñam teewee te waxtu wa xatul nañu ko lekk door a julli jullit farata nag sib nañu di ca wax axuusu billahi min a saytaani rajimi ak bismillahi rahmaani rahimi waaye waaye naafila nag sibuñu ko ca sib nañu it su jóot ci taxañub kaala wala loxom mbubb te lor waralu ko ak sax dara ci sa gémmiñ wala fas ko ci sa loxom mbubb ak jàng alquran ci ab rukoo ak def ak di fa ñaan ak xalam lu dul lu lay taxa ragal yàlla ak koya sab sikkim wala sab jaaro ak di geestu ak di jatu ak di gëmm ak rabbe say baaraam ak di ko foq sopp nañu nag geesu ci sa wetu ndeyjoor booy sëlmal sopp nañu it xunnoot sopp nañu itam wax amin ci maamoom ci jullit yalu ak ci biral bu déggee yi limaan wax wala daaliin waaye bu ko déggul nag du ko nattale sopp nañu ko yépp ci yilimaan ci jullit yalu sopp nañu ko itam ci kenn kuy julli moom rek moo xam day biral wala mu yelu ñoom ñépp nag ku ko ciy wax sopp nañu mu yelu ko sopp nañu itam ak làmbaay goo xam ne yilimaan da koy teg ci am ndoddam waaye bu ko amul te am ab jàllaabe wala manto wala kaala gu mag itam dana ko mën a wóotu sopp nañu itam boo kàbbaree nga yoor say loxo te bañ koo ñëpp sopp nañu itam ponk booy def mu ànd ak allahu akbar ja waaye boo jógee ci taaye ji jëkk nag bala ngaa wax allahu akbar na nga nekk ba taxaw temm boo dee maamoom it boo taayaa taaye ji jëkk bala ngaa jóg na nga nekk ba yilimaan taxaw temm ba wax allahu akbar yow it nga door a jóg ba taxaw temm door a wax allahu akbar sopp nañu itam booy taaya nga teg say loxo ci sa bëti wóom te bank ca ci baaraami ndeyjoor ba tàllal bu dëy ba ak sànnikaay ba di yëngal sànnikaay ba yëngal bu digg doomu tàmbalee ci ndeyjoor wuti càmmoñ sopp nañu itam ci góor buy julli mu soreel ay tànkam te bañ leen a tàppe bu dee si jóot mu soreel biiram ak i luppam ay coñcoom itam mu soreel ko ak i wetam bu dee jigéen nag day tàppe cëram yépp maamoom nag bu dee kenn na féete ca ndeyjoorul yilimaan te yilimaan jiitu ko tuuti bu ñu ëppee kenn nag nañu féete ca gannaawam bu ca ay jigéen àndee yit nañu féete ca gannaaw góor ña te bañ a yor dara ci xeeti takkaay yuy yëngatu wala lat ko lañ juy xeeñ sopp nañu itam ku julli farata ba noppi te bëgg naafila mu jóge fa mu doon jullee farata ja ba ci beneen barab mu naafila fa moo xam yilimaan la wala muy maamoom moo xam ci jàkka la wala feneen naafila yii nag sunna la ci defin wii nuy bëgg a wax jaxase koog farata yi mi ngi nii ñaari rakkaay fajar teg ca ñaari rakkaay faratay suba teg ca ñeenti rakkaay yoor yoor teg ca ñeenti rakkaay njëkk tisbaar teg ca ñeenti rakkaay faratay tisbaar teg ca ñeenti rakkaay gannaaw tisbaar teg ca ñeenti rakkaay njëkk takkusaan teg ca ñeenti rakkaay faratay takkusaan teg ca ñetti rakkaay faratay timis teg ca ñaari rakkaay gannaaw timis teg ca ñeenti rakkaay faratay gee teg ci fukki rakkaay ak ñaar gannaaw gee ak benn bu beru ñu di ñu tudde ko wetar lii ku ko man bés bu ne sunna la waaye fukki rakkaa ak ñett yi ñu mujj wax nag bu dee ci weeru koor sunna su feddu la ko la sunna su fedd liku lay doon nga xam ne bu ñu jullee gee ba noppi la ko mbooloo may defe ca jàkk ja kenn di leen jiite waaye bu dul koor nag kon ku ne sa kër nga koy defe witar nag sunna la su far benn rakkaa lay doon boo xam ne faatiya nga cay jàng aqul huwa laahu ak falaxi ak naasi lu ci ne benn yoon waaye bala nga koo julli sopp nañu nga jiital ñaari rakkaa yoo xam ne bu jëkk ba faatiya nga cay jàng ak sabbihi isma ra ak sabbihi isma bu ñaareel ba nga jàng faatiya aqul yaa ayyuhal kaafiruuna lu ci ne benn yoon loolu moo di safaa safaak witar nag ku julli gee te naru la naafila mu daldi ko cay teg bu naree naafila nag mu nekk ba nappi mu jëkko bu ko jiitalee itam bu bëggee naafila mën naa naafila lu ko neex te bañ koo baamu ku julli safaa nag na sëlmal door a wetar waaye bu mu leen jokkale kuy safaak wetar nag bu sikkee ci ñaareelub safaa la nekk wala ci wetar na ko def ñaareelub safaa te sujjóot baada te wetar julli ñaari it yi sunna la waaye warul jigéen akub jaam ak kuy tukki fu ñu ko war a defee nag fu dul màkka dañoo war a sàkk ab jullikaay te bañ koo defee ci biir jàkka deesu ko def itam ci dëkk ñaari yoon lu dul nga xam ne dañoo xajul ci benn jullikaay kon sañ nañoo sàkk ay jullikaay wala ñenn ña julli ba noppi ña ca des door a julli si waxtoom nag moo di bu jant fenkee ba xonq xonq ya deñ ba ba tisbaar di jot bu tisbaar jotee nag faat na te deesu ko fay ñaari rakkaa lay doon yoo xam ne dees koy biral waaye deesu ko noddal deesu ko liqaamal bu jëkk ba dees na ca kàbbar juróom-ñaari kàbbar yoo xam ne bu armal ba ca lay bokk bu ñaareel ba itam dees na ca kàbbar juróom-benni kàbbar yoo xam ne bu jógaale ba ca lay bokk kàbbar yooyu nag bu armal ba rek la ca yëkkati ay loxoom bu ko fàttee ba tam ba tàmbalee jàng itam war na koo def te baamu jàng ya li feeg rukkoowul waaye bu rukkoo nag na ko bàyyi te sujjóot xabla sopp nañu mu jàng ca rakkaa bu jëkk ba faatiya ak sabbi hisma bu ñaareel ba mu jàng ca faatiya ak wasamsi dees na ca def itam ñaari xutba yoo xam ne gannaaw julli ga lay doon te dees na jekki ca seen diggante xutba bu ci ne yépp dees na ca kabbar waaye kabbar ya amul ab sopp nañu itam yilimaan ci biir xutba ba wala bu xutbaa ba noppi mu wax ak nit ñi loo xam ne seeni aajo jëm na ca rawatina nag lu aju ca bés ba moo xam kori la wala tabaski sopp nañu itam ku sangu ca bés ba gannaaw fajar te mu jëkk julli ga ak laal ca lat koleñ ak sol ca sër yu rafet ak defar ca sa kawari yaram sopp nañu itam booy julli ji boo ko mënee nga dox ci sa tànk te bañ a war ci dara sopp nañu itam booy dem ngay tudd yàlla ak boo fa toogee te yilimaan génnagul tudd yàlla gan ak allahu akbar moo ca gën sopp nañu itam booy dellu nga jaar ci yoon wu bokkul ak wa nga jaaroon ba ngay dem sopp nañu itam bu dee kori bala ngaa julli ji nga mos dara bu dee tabaski nag boo xëyee nga jàpp ba julli ji ba ñëw ba rendi sam xar wut ca res wa doge ko sopp nañu itam la dale ca tisbaari bésub tabaski ba ba ca suba bésub ñeenteel ba foo sëlmalee ci julli farata gune nga wax allahu akbar ñetti yoon julli it nag ku ñu ca raw su fekkee yilimaan di jàng kon na kàbbar juróom-ñaari yoon door a ànd ak yilimaan la ca des bu ko jotee ci rukkoo ba itam kon booba rakkaa jot na ko bu ko rakkaa ba rawee nag kon mu ànd ak yilimaan rakkaa ba ca des ba mu sëlmal mu fay ba ko rawoon na ko yilimaan defe woon bu fekkee yilimaan ci taaya itam wala sujjóot nga xam ne amu ci lu matul rakkaa kon it day ànd ak moom la ca def bu sëlmalee mu jóg julli julli ga na ko yilimaan defe woon ku wopp nag sañ naa saafarawu sañ naa ñaane wér sañ na koo ñaan lu itam sañ naa naan ay garab moo xam garab yi wolof la mel ni am seen njeñ wala am rab wala yeneen wala sax muy garabi docteur mel ni niwaatin wala garabi soj wala yeneen li mu sañul daal moo di dem ci ab jabar naa ko seetal ma sama tawat ji wala mu di ko jox ay yëpp muy gëm la mu ko wax loolu yoon tere na ko ku wopp ba ñu naagu ak dundam nag war na mu jéem a rafetal ay jëfam ak i waxam di tàggat bakkanam ci jikko yu rafet lu mu man bàyyi xuloo ak xëccoo ci mbiri àdduna war na itam mu balu ak ay dëkkandoom ba ci ay soxnaam ak i doomam ak i xaritam ak képp ku mu daa jëflanteel ci lépp lu mel lu mu leen defoon wala mu wax leen ko te noogu mu noyyi mu defe ne du ca tegaat geneen di sàkku nag ci yàlla mu may ko mujj gu rafet mu dolli ak parloom ci julli yi juróom ak wattandiku sobe muy di muy dénk ay bokkam itam ñu muñ ko bañ a jooy ay bokkam itam war nañu koo seeti ca wopp ja seeti ku wopp nag amul bés ku seeti ku wopp ku ab digam teewul bu ko waxee lii dana wér mi ngi nii asalullah alxasima rabbal xarsil xasimi an yasfiika bi sifaihi juróom ñaari yoon bu ab digam teewee itam moom mi ko wax dana ci am tuyaaba ju rëy war na itam ñi di ko xemmem loo tuub ak di ko rafet loo njortam ci boroomam sopp nañu itam muy taqool ak koleñ ak di di sol yu set ku jàng ci wopp ayatul kursi yi ak lawa antal naa xaasaal quraana ba ca saarwa ak ñetti lixlaas ak laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min assalimina ñeen fukki yoon loolu ku ko def dana ca am tuyaaba ju rëy te bu te bu ca faatoo deesu ko fitnaal ci bàmmeelam te faww dana deyaale gëm te dees na ko bindal yoolu ku dee jihaat ci ku dee ci jihaat bu ca wéree itam dees na ko jéggal bàkkaaram yépp yu jëkk ak yu mujj bu niru ne bu niroo ne mi ngi ci sukuraat nag nañu ko tëral ci wetu ndey jooram te kanam nga jublu xibla bu jàppandiwul ñu def ko wetu càmmoy bu jàppandiwul ñu jaaxaanal ko tànk ya jublu xibla war na itam ñu nekk fi moom di wax laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi ngir mu fàttali ko ko te ñu bañ ko koo wax loo su ko waxee benn yoon itam mu doy li feeg waxul jeneen wax bala ñu koo tëral itam nañu fexe ba mu wax ko sopp nañu itam jox ko ndox mu sedd waaye bu nuróoni soxla na ko nag moom jox ga day war sopp nañu itam ñuy jàng fi moom saaru yësi di ko biral ak saaru rax bi ci ak yelu loolu dana dindi maru sukuraat dana jàppandal génn róoga sopp nañu itam ñu laabal ko ba dara ci sobe bañ koo jige sopp nañu itam ku amee janaba bañ koo jige moo xam góor la wala jigéen ak nataalub lu amul roo moo xam ci aw këyit la nekk wala ci ay sër ak dara ci xeeti fowukaay yépp moo xam ab rajo la wala lu xeetoog moom wala ak xalam wala akub dawkat sopp nañu itam ay xaritam teewe ko te bu ruuga génnee bu bët ya ajoo nañu ko gëmmal te ka koy gëmmal wax lii bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama allahumma yasir alayhi amrahu wa sahil alayhi mawtahu wa ashidhu biliqaika wajhal ma xaraja ilayhi xayran mimma xaraja minhu bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimina te ñu takk jëmmiñ ga ngir mu bañ a ŋax te ñuy nooyal baaraam ya ak tinqo ya ñu di ko bank ak a tàllal yére ya mu faatoo itam nañu ko dal di dindi te suturaal ko ci mbalaan mu woyof te ñu wattandiku itam waxtu wa ruugay jënn dara ci awraam di feeñ wala awray ku nekk fi moom te ñu teg ko ci kaw dara te bañ ko bàyyi ci suuf te lañu koy teg itam bu ñu calal dara te ñu teg ci biir ba lu xaw a diis tuuti sopp nañu itam ku ko teewe ñaanal ko ak njëggal ak yërmande ak dee ci lislaam te bu faatoo nañu ko gaaw a yëgle te bañ koo yéene te ñu gaaw fay ay borom ak i dénkaaneem te balul ko ak ay dëkkandoom ak i jigéen ñaaleem war na itam ñu sang ko bu fekkee judduwaale na bakkan waaye ku judduwaalewul bakkan nag deesu ko sang deesu ko jullee waaye dees na ko sàng dees na raxas itam la ko taq ci deret door koo suul ni ñuy sangoo farata rekk nag lañu koy sange waaye bala ñu ko koo sange nag nañu raxas yaram wa bala ca taq lépp set wicc loolu nag nañu koy defee moo di dañuy wut am ndéem jamb ko ba mu saf ñu raxase ko ko bu ñu ko amul ñu wut saabu bu ñu koy sang itam nañu bësaale biir ba bala ca mën a génn ci ak jàppandi génn ana ku ko war a sang nag ku néew ba dénkaane woon bu ko manee moo ko war a sang naka noonu ñaari way dencante itam ku ci ne sañ naa sang moroomam doonte ab taara la sax bu fekkee jigéen dafa faatu te amul boroom kër wala mu am ko sax waaye mënu koo sang kon jigéen ju ko gën a jige rekk moo ko war a sang bu fa jigéen nekkul kon góor gu mu araamanteel ci denc mën na koo sang waaye day suturaal yaram wa lépp tey day wut sekkit wu tal doxale ko diggante loxoom ak yaram wa bu fa jigéen nekkul góor gu mu araamanteel nekku fa kon ñu tiimal ko te loxo ya bu ñu ca weesu tekku jara ya bu jigéen di tiimal góor nag mën naa dem ba ca conco ya bu góor di sang góor itam na suturaal awra ja lépp te bu koy raxas mu bari ndox ma te wut aw sekkiit doxale ko seen diggante sopp nañu itam mu doon ñetti cangaay lu jëkk la ñuy booleeg am ndéem ak lu ñaareel la ñuy def ni cangaayul farata ak lu ñetteel la ñuy booleeg kaafoor wala la ko lañ bu ko ñett ya setalul nag manees na koo weesu ba ba muy set rek waaye nag sopp nañu muy tóol ba ba muy mat juróom-ñaar bu ko weesoo nag dootuñu sopp tóol ga sopp nañu itam ñu teg ko ci lu yëkkatiku ba ndox ma mën a siit sopp nañu itam bu ñu ko sangee ba noppi ñu wut lu mel ni ab sarbet fopp ko ca ba mu fendi ñu door koo sang te gaaw koo sang itam bu ñu ko sangee ba noppi sobe génn ci moom itam du tax ñu baamu sangaay la dañuy raxas sobe sa rek ki ko doon sang moom it bu noppee sopp nañu mu sangu sopp nañu itam bala ñu ko sang ñu wut wëteen def ca lak ko lañ taf ko ci ay sujjóotu kaayam ak i poqutaani loxoom ak yu tànkam ak buntu yaramam yépp dees na bind itam ci ab ja am bismillahi rahmaani rahimi dees na bind itam ca dënn ba laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama waaye lu ci ne ci baaraamu sànnikaay rek les koy binde waaye desu ko bind ci daa bu ñu koy sàng itam sopp nañu mu doon lu weex te tóol bu dee góor ñu wutal ko mbubb ak tubéy ak kaala te wutal kaala ga ab langal ca kanam ak ñaari mbalaan yoo xam ne dañu ko cay taxañ muy juróomi daggiit bu dee jigéen ñu wutal ko mbubb akub ñëkk akub musóor ak ñeenti mbalaan yoo xam ne dañu ko cay taxañ muy juróom ñaari daggiit sàngaay lu ci ne bala ñu ko koo sàng nañu ca def la kolañ wala ñu suur ko waaye ndab lu def sawara deesu ko yóbbu ci ay armeel jàmbur bu jigéen nag mën naa sang gone gu góor ba ba muy am juróom ñetti at waaye su ko weesoo du ko mën a sang jàmbur bu góor itam mën naa sang gone gu jigéen ba ba muy am ñetti at waaye bu ko amee moom it dootu ko mën a sang kuy sang nag bu ragalee seddug ndox ma sañ na koo tàngal néew ba itam bu fekkee ragaloon na ndox mu sedd moom it mënees na koo tàngal ba mu mel na mu ko bëgge woon sib nañu nag fa ñu koy sange kenn nekk fa ku bokkul te ña koy sang wala ku leen di dimbali warees na koo jullee itam bu fekkee judduwaale na bakkan te ñu xam ak njullitam te doon ku teew te bañ a doon ku daggatoo bala ca ëpp dikkul julli gën ak ñeenti kabar lay doon yoo xam ne bu jëkk ba rek nga cay yëkkati say loxo bu dee góor nga taxaw fa tolloog ndiggam bu dee jigéen nga taxaw fa tolloog ay mbaggam daldi kabar te bala ngaa kabar nga wax ci sam xel ne fas na ma yéenee jullee néew bii bu dee kenn wala nga ne néew yii bu dee ñaar wala mu ëpp ko bu dee genn góor nga wax lii te gannaaw kàbbar bu ne te ñett yu jëkk ya bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi allasi amaata wa ahyaa walhamdulillahi allasi yuhyi almawta lahu alxasamatu walkibriyaau walmulku walqudratu walsanaau wa huwa ala kulli cheyin qadirun allahuma salli wa sallim ala sayidina محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فسد في إحسانه وإن كان مشيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده loolu ngay wax gannaaw kàbbar bu ne te ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw kàbbarum ñeenteel ba nag nga wax lii allahumma axfir hayyina wa mayitina wa xaadirina wa xaaibina wa saxirina wa kabirina wa sakrina wa wa unsana innaka taalamu mutaqallabana wa maswana wa liwalidina wa liman sabaqana bil imani wa lilmuslimina walmuslimati wa lilmuminina walmuminati al ahyai minhum wal amwati allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al imani wa man tawafaytahu minna fa tawafahu ala al islami وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيب حلنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا دال بسلمل بودي نياري غور nga wax la dale ca bismillahi rahmani rahimi ba ca hamidun majidun nga teg ca lii allahumma innahuma habdaka wamna habdayka wamna amatayka kana yashhadani أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك وأنت أعلم بهما اللهم إن كانا محسنين فشد في إحسانهما وإن كانا مشيئين فتجاوز عن سيئاتهما اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما loolu ngay wax gannaaw ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nga wax la nga waxoon ca gannaaw kàbbarub ñeenteelub julli ku bu jëkk ga daldi sëlmal bu dee mbooloo mu góor nga wax la nga waxoon ca bu jëkk ba ba ca majidun nga teg ca lii allahumma innahum habiduka wa amnaa'u habidika wa amnaa'u imaa'ika كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك وأنت أعلم بهم اللهم إن كانوا محسنين فشد في إحسانهم وإن كانوا مشيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم lii ngay wax gannaaw ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nga wax la nga waxoon te gannaaw ñeenteel bu jëkk ba dal di sëlmal bu dee gone gu góor nga wax la nga waxoon ba ca majidun nga wax lii allahumma innahu abduka wamnu abdika wamnu amatika anta xalaqtahu wa rasaqtahu wa anta amatahu wa anta tuhyihi allahumma fajhalhu liwalidihi salafan wa suhran wa faratan wa saqil bihi mawasinahum wa ahsin bihi ujurahum ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحقه بصالح السلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وهافه من فتنة القبر ومن حسابهم جهنم lii ngay wax gannaaw ñetti kabar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nga wax lii allahumma axfir li aslafina wa afratina wa liman sabaqana bil imaani allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al imaani wa man tawafaytahu minna fa tawafahu ala al islaami واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات دال دي سلمل بودي ñaari gone yu góor nga wax la nga jëkkoon a wax ba ci majidun nga wax lii allahumma innahuma habdaka wamna habdayka wamna amatayka anta xalaqtahuma wa rasaqtahuma wa anta ammatahuma wa anta tuhyihima اللهم فاجعلهما لوالديهما سلفا وصغرا وفرة وثقل بهما مواسينهم وأحسن بهما أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجرهما ولا تفتنا وإياهم بعدهما اللهم ألحقهما بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وحافهما من فتنة القبر ومن حساب جهنم لولو ngay wax gannaaw ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nga wax la nga waxoon ba muy genn gone gu góor dal di sëlmal bu dee mbooloom gone yu góor nga wax la nga jëkkoon a wax ba ca majjidun nga teg ca lii allahumma innahum habiduka wa amnaa'u habidika wa amnaa'u imaa'ika anta xalaqtahum wa rasaqtahum wa anta amatahum wa wa anta tuhyihim allahumma faj'alhum liwaalidihim salafan wa suxran wa faratan wa saqil bihim mawaasinahum wa ahsin bihim ujoorahum wala tahrimna wa iyaahum ajrahum wala taftinna wa iyaahum baxdahum allahumma alhiqhum bi saalihi salafi lmuminina fi kafaalati ibrahima wa haafihim min fitnati alqabri wa min hasaabi jahannama lii ngay wax gannaaw ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nag nga wax la nga waxoon ba muy genn gone gu góor dal di sëlmal bu dee jenn jigéen moom it nga wax la nga jëkkoon a wax ba ca majjidun nga wax lii allahumma innaha amattuka wabnata abdika وابنة أمتك كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك وأنت أعلم بها اللهم إن كانت محسنة فسد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتن ولا تفتنا بعدها loolu ngay wax gannaaw ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nga wax la nga waxoon ba muy genn góor daldi sëlmal bu dee ñaaru jigéen nga wax la nga waxoon ba ca majidun nga teg ca lii allahumma innahuma amataaka wamnataa abdayka wamnataa amatayka kaanataa tashhadaani an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna sayidana muhammadan sallallahu taala alayhi wa sallama abduka wa rasuluka wa anta ahlamu bihima allahumma in kaanataa musinatayni fasit fi ihsaanihima wa in kaanataa musiatayni fatajaawaz an sayi'aatihima allahumma la tahrimna ajrahuma wala taftinna bahdahuma loolu ngay wax gannaaw ñett yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nga wax la nga waxoon ba muy jenn jigéen dal di sëlmal bu dee mbooloo mu jigéen nga wax la nga waxoon ba ca majidun nga wax lii allahumma innahunna imaa'uka wa banaatu abidika wa banaatu imaa'ika kunna yashhadna an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna sayyidana muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallama abduka wa rasuluka wa anta ahlamu bihinna allahumma in kunna muhsinatin fasid fi ihsanihinna wa in kunna musiatin fatajawaz an sayiatihinna allahumma la tahrimna ajrahunna wa la taftinna ba'dahunna lii ngay wax gannaaw ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nga wax la nga waxoon ba muy jenn jigéen dal di sëlmal bu dee genn gone gu jigéen nga wax la nga waxoon ba ca majidun nga wax lii allahumma innaha amatuka wamnatu abdika wamnatu amatika anta xalaqtaha wa rasaqtaha wa anta ammataha wa anta tuhyiha allahumma faj'alha liwalidiha salafan wa sukhran wa faratan wa saqil biha mawasinahum wa ahsin biha ujurahum wa la tahrimna wa iyyahum ajraha wa la taftinna wa iyyahum bahdaha اللهم ألحقها بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وحافها من فتنة القبر ومن ومن حساب جهنم loolu ngay wax gannaaw ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nga wax la nga waxoon ba muy gone gu góor daldi sëlmal bu dee ñaari gone yu jigéen nga wax la nga waxoon ba ca majjidun nga teg ca lii allahumma innahuma amataaka wamnataa abdayka wamnataa amatayka anta xalaqtahuma wa rasaqtahuma wa anta ammatahuma wa anta tuhyihima allahuma fajhalhuma liwalidihima salafan wa suxran wa faratan wa saqil bihima mawasinahum wa ahsin bihima ujurahum wala tahrimna wa iyahum ajrahuma wala taftinna wa iyahum baxdahuma allahuma alhiqhuma bisalifi salafi lmuminina fi kafarati ibrahima wa haatihima min fitnati alqabri wa min hasabi jahannama loolu ngay wax gannaaw ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba nga wax la nga waxoon ba muy genn ba muy kenn dal di sëlmal bu dee mbooloom gone yu jigéen nga wax la nga waxoon ba ca majjidun nga wax lii allahumma innahunna imaa'uka wa banaatu abidika wa banaatu imaa'ika anta xalaqtahunna wa rasaqtahunna wa anta ammatahunna wa anta tuhyihinna allahumma faj'alhunna liwaalidihinna salafan wa sukran wa faratan wa saqil bihinna mawasinahum wa ahsin bihinna ujurahum wa la tahrimna wa iyahum ujurahunna wa la taftinna wa iyahum ba'dahunna allahumma fa alhiqhunna bi salihi talaf almu'minina fi kafalati ibrahima wa hafihinna min fitnati alqabri wa min hasabi jahannama loolu ngay wax gannaaw ñetti kàbbar yu jëkk ya gannaaw ñeenteel ba moom it nga wax la nga waxoon ba muy kenn dal di sëlmal bu dee ay góor ak jigéen nag nga wax la nga waxoon ba muy góoru kese bu dee ay mag ak gone itam nga wax la nga war a wax bu doon magi kese bu néew ya baree nag fañes na leen a ber kenn kenn di leen jullee waaye boole leen moo gën bu ñu leen dee jullee itam ku ñu defe ne moo ca gën moom la ñuy féetaleeg yilimaan bu dee góor a ko bu dee góor a ko jigéen itam góor ñi la ñuy féetaleeg yilimaan doonte ay gone lañu sax bu dee mag ak gone itam mag ña la ñuy féetaleeg yilimaan kon noo ngi yem fii ci bàndub ñetteel bi xëtum juróom benn fukk ak ñett di séentu bàndub ñeenteel bi insha allahu